format 700 grammes bu bees tàkk ànd ak kubéer pour bu ñu mën a jëfandikoo ay yoon i bu kenn dul na table. tamate lingeer dafa neex. di nga wax cere te ku ne cere daal di nga wax bomb te ku ne bomb sa xel dafay daal di dem ci beurre Jadida waaye kadi du des ginnaaw ci suñu togg dañuy daal di jox guubu neex a neex xam nga ni nag boo lekkee sa cere ba pare sa xel dafay daal di dem ci naan meew te xam nga ni meewu alib moo ci gën a baax. Sénico di leen wax jërëjëf di leen wax tamit déwénat yi. taajaboo wallay poulet trésor wallay taajaboo wallay poulet trésor wallay eh dama ne ku ne tam xarit na ganaar ku ne ganaar na poulet trésor samay ginaar duuf nañu ndawalu nañu liggéey ba sell na foo man a ne ak nombre boo ci mën a soxla wooteel ci numéro bii di daw ci suuf xanaa xamul ne may ambassadeur yi yéegi <laughs> ah waa lu may xeeñ yaa ngi may xeeñ eh ci rajo ànd ak poulet trésor yéen génn foo jigéen ñëpp ay trésor lañu poulet alhamdulilah rabil alamin la ñuy wax ndaxte comme niñ ko ñaanee woon yàlla rek noonu la ñu ko defalee moo ñu commencé ko si bismillah rahmaani rahim ñu daal di ko euh, yeggali ci alhamdulilah rabil alamin te loolu la ñu yàlla defal comme nag teel a tam xarit euh, gars yi euh, nee naa leen macha allah bés bu sell la bés boo xamante ni la macha allah yal nañu yàlla nangul suñu ñaani lépp lépp yoo xamante ni am ah, koy ñaan yàlla yal nañu ko yàlla nangul bu baax a baax a noonu rek may man damay ñaanal bu baax baax sama sponsor euh, di leen ñaanal euh, déwén ñu gën a yokku euh, ba yëg ko incha allahu waa Sinico yéen merci beaucoup ci bouillonkat yi bi nga xamante ni moom ngeen ñu jox ñu daal di toggee li nga xamante ni mooy suñu cere 20 22 relevé goût bi affaire bi daal di neex parce que it's all naturel at the same time meewu alib bi nga xamante ni moom ngeen ñu baaxee jox ñu ko nee naa leen lépp loo xamante ni danga ko doon wër si meewu nag alib remplacé na ko lépp loo xamante meew da ciy dem dem boo ci defee alib doo ko rëccu benn yoon lii maa ko wax maa ko garanti parce que man mii maa xam luy alib euh, noonu rek euh, ma daal di euh, remercier waa agrolin ñoom tamit di leen ñaanal bu baax a baax a baax ci di leen ñaanal déwén ñu gën a yokku ba yëg ko ndaxte nag ñoom ah, bi ñu ñëwee ah, Sénégal ah, ba tey def li nga xamante ni mooy seen production food production boobu noonu booba ba tey defuñu fi lu ñaaw parce que ñu ngi sooraale li nga xamante ni mooy wérgu yarami public bi moo tax ne boobu ba tey def nañ 17 ans of existence depuis bu ñu commencé seen food production mu ngi noonu waa Agroline si tamaate Linguère bi nga xamante ni 700 grammes la ñu indil 1300 lay jar boutique boo dem am na fa am na 2 am na cinquante grammes euh, boo xamante ni ah, macha allah dafa ñëw pour noppal ñëpp at the same time euh, ñi nga xamante ni ñooy waa poulet trésor ñoom nee na ñëpp trésor lañ képp koo xamante ne yaa ngi jëfandikoo euh, poulet trésor trésor nga ba tax na ah, di leen remercier bu baax a baax a baax a baax ñoom itamit noonu rek. tey nag euh, sama euh, gante sama ndaanaan xam ngeen ne euh, rek ne il faut lii du ñàkk il faut ñu am tuuti ambiance bu ñu leen indil tey sama gan daf di xale boo xamante ni ah macha allah su ma nee xale nag mooy xale bu jigéen boo xamante ni boobu ba tey mi ngi si musique sénégalaise musique defu fi lu ñaaw waxuñ waxu fi lu ñaaw te tamit ku màndu la am bopp xam boppam am personnalité si li nga xamante ni mooy boppam am kilifa itam parce que boobu ba tey fi mu teg tànkam teggiwu ko. benn instant gisatuñ ko woon léegi mu ñëwaat nag di yëngal dëkk bi di bomb di zone xam nga may def damay dem ah, def ni ma daan def rek daal di ah, dem ah, daal di tàggatoo ak ki nga xamante ni mooy maire ngoone at the same time tàggatoo boobu noonu mu wax ñu tey cere bi ñuy tëjee li nga xamante ni mooy seen cey cere 2022 lan la lan ak lan la soxla pour togg ko sama gaa yi xool leen damay dox ndànk daagu ndànk waaw 2022 bi nii laa ko jeexalee. mel ngoone jërëjëf masa coono waañ bi tàng na metti na ah ma bàyyi la rek ah, nga wax ñu tey ah, cere bi ngay togg ah, ban façon cere bi ñuy tëjee xanaa ñu sant yàlla rek bi ñu fekkee eh, biñ ko fekkee ren ji ñu ñaan yàlla fekkee ko déwén ak jàmm ak salaam yàlla nañ yàlla defal jàmm ñun ñépp yokk sutura bi ak taraanga bi ñu fekkee waat ko ak jàmm ak salaam tey nag cere bomb laa leen toggal cere bomb royal waaw cere bomb royal. kooku moom suñu devise la Abis Garden. man de woon ne cere bomb am na royal. na royal moom ah. waaw cere bomb royal leen toggal poulet trésor lañ ko toggee. Uh-huh. def ci tomat lingeer. daal di ci def suñu bouillonkat yi. na woon fa woon ñoom daal ñoo ñu dooleel. bu ñu bu ñu yekkee def alib. Uh-huh. daal di koy digalee rek. waaw bu ko defee macha allah daal. Euh, ñun waa groupe Futurs Médias ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ndaxte comme yu Ndour dafa wax euh, boo lekkee ba suur war ngaa gërëm ñu dugg ci waañ bi euh, ñan nga bëgg a remercier yow tamit. waa maa ngi remercier ñëpp di remercier particulièrement waa TFM di remercier waa Abis Garden ñi ma choisir pour ma toggal leen cere bi ak waa TFM bu baax a baax équipe bi yëpp surtout yow Awa Gueye <laughs> Mbisaan yéen ñëpp ay satu yéen ñëpp maa ngi leen di gërëm. di sant di sant sama xale yi sama doom yi <laughs> sama sama compagnon de guerre yi nga xam ne ñooy jàpp si liggéey bi waa waa waa économie ku mel ni maman sonn na si torop fan yi maman commercial moom tamit maa ngi koy sant di ko gërëm di gërëm sama chef cuisinier Ibrahima di gërëm ñëpp daal Issa Mali boo limee da ngay juum waaw di sant di gërëm nag sama yaay mi nga xam ne moo ma jàngal togg mm-hmm. macha allah. mu yar ma yar bu baax ma koy sante yàlla nag ndax tey nu ma mel rek kooku moo tax di si teg sama jëkkër macha allah moom mi ma dooleel. di ma bàyyi may xëy di liggéeyi. man su ma màggee naa <laughs> xoolu heure bu may wàcc xoolu heure bu ma wàccul xool sama teel a xëy lijjantiwul sama dara. Mhm. maa ngi sant di ko gërëm. waa mi ngi noonu ah, yow tamit di la santaat bu baax a baax a baax ma bàyyi la nga dem ah, daal di ah, préparé man tamit ma xaar sama ndaanaan sama ndaanaan naka sa fans la koo bëgg la jigéen boo xamante ne la macha allah kon boo ko ñu royal bi euh, boo koy togg euh, lan ak lan ak lan ngay soxla xam naa rek euh, mbisaan dina wane image yi su ko defee xam naa ne nag tey moom spécial lay nekk. thank you so much uh, si uh, cere royal bi nga xamante ni uh, moom nga ñu defal di la tàggu rek di la wax incha allah di ñaan yàlla rek defaat ak yow at beneen cere déwén incha allahu yàlla may la wér di jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ni ñoo nekkoon si waañ bi ndaxte waañ tàng na métti na thank you guys so much waa abis Garden waay rek ma remercier again wax naa leen ñi nga xamante ni ñoo tax cere bi ni neex mooy waa Sinico bi ñu jox bouillon kat waa Sinico euh, bi ñu jox euh, euh, meewu alib waaye ñi nga xamante ni tamit ñooy waa Agroline bi nga xam ne ñoo ñu jox suñu tamaate tamaate Linguère am na gramme grammes 1300 lay jar am na 2 kilos am na li nga xamante ni tamit mooy 350 grammes boutique boo dem rek mi ngi foofu noonu yomb na neex na te sell na waaye ñi nga xamante ni tamit ñooy waa poulet trésor ñoom ñu ne ñëpp trésor lay kenn du wax tam xarit waxoo cere te kenn du wax cere waxoo ci li nga xamante ni mooy ganaar ñu daal dañu indi la ganaar bii nga xamante ni euh, sat na sell na macha allah da nga koy xool rek mu ñor euh, ma daal di euh, wëlbatiku daal di nuyu sama yaay Adja Moussine Fallou euh, di la wax ne euh, it was really really really a pleasure comme d'habitude euh, di liggéey ak yow ndaxte wax dëgg neex yàlla da nga koy yaatal ba mu yaatu du ne da ngay sañ taxaw noonu présenté mais da ngay jël ñëpp uuf leen def leen comme sa njaboot comme ni ma koy waxee rek maa lay waxaat thank you thank you so much waaye di la nuyuwaat rek xam naa ne bii du bii du last one man ak yow. <laughs> dëgg la donc Awa Gueye merci lépp si yow la. ndaxte yaa ma gis rek euh, comme on bëggal ma sa bopp di remercier suñu téléspectateurs yi di sant bu baax parce que boobu ba léegi ñu ngi ànd ak ñoom ba tey di tamxarit tamxarit nag duñ ko waxee wax cere duñ ko waxee wax ginaar wax yàpp wax lan déwénati donc ñu ngi wax déwénati à tout le monde di ñaan yàlla yàlla mu doon yàlla def mu doon at bu ànd ak xéewal bu ànd ak jàmm ànd ak wér si ñëpp di ñaanal nag waa groupe bi yëpp yàlla def fi jàmm te TFM groupe Futurs Médias yàlla yokk leen ndaxte man damaa ñëw si fii mel ni dama fay bokk mu nekk sama kër nekk à l'aise wax dëgg yàlla nekk à l'aise vraiment ma nekk fi à l'aise trop macha allah di leen sant yéen ñëpp di sant euh, équipe technique bi ñu nekkaloon boobu ba ci di leen wax ni vraiment nekk na saison boo xam ni j'ai apprécié parce que c'était naturel lu ñu def aussi yàlla boole ñoog ay sponsors yu am maanaa sponsor yoo xamante ni dañoo ñëw indi lu rafet lu baax lu sell donc ñu ngi leen naan déwénati di leen wax ni nag tey dañoo indi cere royal. muy royalaan mooy bésu tamxarit bi daal il faut mu différent ñu togg leneen ak leneen mun ngeen koo yër noonu moo ngi nii cere waaye nga yekk ko fu rafet ah mënta ñàkk parce que léegi affaire yi dafa évoluer ndaxte àdduna duy dox da ngay dox ànd ak moom dañuy togg ba mu baax sense taaj lu rafet man loolu laa wax àdduna nag mooy dox duy dox dangay ànd ak moom di jënd ay vaisselle yu baax di ko teg donc Awa je vous di merci di ñaan yàlla ñu fekkee ko ay saison saison si barke sëñ Fallou. Euh, mi ngi noonu euh, moom sama yaay la sama xarit la euh, ndeysaan nee naa leen mooy yaayu groupe Futur Media man maa ko wax maa ko wax te xam naa lu tax ma wax ko thank you so much Adjamou sëñ Fallou thank you for the disponibility and everything noonu rek sama gars yi hmm. dama bëgg ñëpp defaraat too toogaay yi ndaxte xam nga lu tax. tey sama invité nekk euh, koo xamante ni as euh, a inspirational person képp koo xamante ni ndaw nga war ngaa xool si euh, jigéen bi ndaxte kat ak lépp lu mun ti xew mi ngi gérer famille am lépp lu munti xew liggéeyam mooy li ko soxal lépp lu munti xew Sénégal mooy li ko ñor kooku mooy kan kooku mooy Zeynab Clara sama jabar sama xarit kooku mooy door a Gaye damay daal di def nii rek macha allah sa jekk ba macha allah ay eh, waay lii daal damay jóg teeru sama jabar lii lii moom du yomb <laughs> you look so beautiful oh my god come here mm. yaa def lii nuyu naa la eh, xoolal man lii daal man ah toogal ah, dalal Clara merci beaucoup defal mënul ñàkk sañseel ma nii rek defal ma kala bi nii ñëw toog. yaay sama chérie yi set ah, normal waaw loolu moom dëgg la. <laughs> Zeynab Clara Gaye nabaate nga de. waaw loolu la yàlla dogal waaw <laughs> ah, parce que xam nga euh, ku la nopp nga nopp ko waaw. Ah, ki ma noban ki ma no ki tax ma nobaate dafa ma nopp moo tax ma nopp. Gaye la sant nag de yow da <laughs> nga lu mu wax si ko sant Gaye. waaw wax na ko de. am ci xarit mbaa nga am ci euh, jëkkër wala jabar. je pense. waaw yow nga am ci lépp. man lépp laa ci am. <laughs> macha allah euh, Clara euh, kan mooy Clara Gaye. Euh, bon Awa su ma la doon wax man la kan damay damay bëgg nga préciser ma c'est-à-dire Clara bi nekk këram. Mm-hmm. nekk mère de famille nekk nekk épouse moom nga bëgg ma wax la wala ma wax la. femme de terrain bi. <laughs> lépp lépp xam nga lu tax euh, parce que boo nee cere cere lu nekk nga koy la ci lu nekk ciy dem. voilà euh, te boo nee tam xarit euh, da nga fi toog en tant que femme ci biir mais at the same time da fi toog as an entrepreneur at the same time da nga fi toog as ki nga xamante da ngay promote lii di a made in Sénégal right loolu mooy sa entrepreneurship sa liggéey and everything so Zeynab Clara in global. waaw donc on va juste essayer parce que c'est un peu vague mais dinañ jéem. donc on va commencer par dire que Zeynab Clara Gaye doomu Sénégal la doomu réew mi la Sénégal laa juddoo yaroo fii fi laa màggee laa jàngee Euh, je suis issue d'une d'une famille très assez large une famille que je salue au passage et que je remercie pour lépp li nga xamante ne def nañ ko ci man pour ma mën a doon kii ma doon tey je viens d'une famille boo xam ni ça va pas être la première fois que je le dise ma famille elle est chrétienne donc j'étais chrétienne de base après suñu borom dogal ma am ma am yëg-yëg si diine nga xam ne mooy l'islam après ma daal di ci dugg ndax sopp aussi Serigne Babacar Sy te ak par le biais de Mame Abdoul Aziz Sy Al Amine yàlla na ko yàlla yàlla na yàlla yokk leeram par son biais ma dugg ci l'islam donc euh, kooku mooy Clara par la suite euh, c'est une jeune femme boo xam ne elle est assez euh, assez entreprenante assez audacieuse sur le sur le plan travail e loolu yëpp li ma koy may mooy li ma wax rek je viens d'une famille où euh, y a toutes les vertus sont respectées c'est-à-dire euh, dañuy inculquer li nga xam ne mooy respect inculquer ñu li nga xam ne mooy dëggu mooy jub ak am jom ak gëm sa bopp donc euh, ak lépp lu mën a xew ma koy sant ginnaaw bi ma sante yàlla ak yonent bi dama koy sante bu baax samay parents parce que dañoo dañoo joué lu bëri ci man donc euh, voilà ñu jugee ci loolu nag ñu ngi ñu ngi bay suñu waar ci li ñu nekk je suis euh, actrice et promotrice culturelle. donc euh, li may promouvoir bari na. comme li nga wax léegi rek donc ah, y compris le Made in Sénégal. l'entrepreneuriat féminin. tout ça te loolu yëpp dafa am ay histoire nag. exactly euh, xam naa ne histoire bi yëpp xëj na du xëj si benn interview bi euh, right mais euh, from Raf Nails to Raf Prod lan moo indi Raf Nails ak the transition from Raf Nails to Raf Prod lan moo indi loolu. waaw loolu li ko indi c'est assez simple soo xoolee Raf Nails bi ma koy créer c'est-à-dire créé wu ma ko woon rek pour ay institut de beauté parce que loolu tamit c'est une question qui revient boo xam ni les gens n'ont pas bien compris c'est-à-dire man. Rafroth sama sama entreprise la si biir entreprise bi man euh, le vole de la beauté la commencé parce que j'ai plusieurs activités yoo xam ni si laa bëgg investir ci la bëgg moom laa bëgg développer donc je me suis je dit si vole yooyu yëpp ma bëgg def ban laay commencer donc j'ai pris le vole de la beauté ma mettre boobu en avant j'ai ouvert trois instituts de beauté sur Dakar et tout ça lenn lu li sabab rek bëgguma bu du ma nit boo xam ne damay bëgg di def liggéey boo xam ne dama koy def man kese. parce que da nga bëgg di jàppale damay bëgg di partager. damay bëgg di fédérer loolu suñu borom moo ko def ci man. donc je me suis toujours di su may investir na investir ci loo xam ne du c' est pas un travail qu'on fait à titre individuel. Mm-hmm. donc j'aurai toujours besoin de personnel j'aimerais travailler en équipe et en collaboration donc ñu commencer. par euh, parce que ça allait forcément faire travailler des jeunes filles. mooy raffinage. mooy raffinage mooy raffinage beauty. raffinage beauty. Yeah. ok loolu mooy raffinage beauty loolu moo indi woon institut yi surtout pour faire travailler beaucoup de jeunes filles ñoo ngi def ay formation esthétique en onglerie coiffure maquillage. loolu ban at la woon. Euh, c'était en 2018. 2018 mais okay. n'exerce pas en fait. parce que liggéey amul. dëgg la donc euh, <laughs> voilà. nga doon créer emploi dañuy jéem rek dañuy créer emploi même su fekkente ne c'est c'est c'est un c'est une quinzaine d'employés wala une trentaine dañuy jéem rek yokk yokk suñu réew parce que ku yokkul rek yaa wàññi. te yaanuñu yàlla bokk ci ñuy wàññi. amiin euh, yaa ngi wax sànq euh, da nga def transition from uh, being a Christian to uh, Muslim uh, macha allah euh, loolu tax na ngay def social bu bëree bari ndaxte si sa biir si ay fiw yi ngay def man jot naa si tànn ñaar. yi nga xamante ni euh, fës na bu baax a baax ci li ngay def mooy ci côté euh, prison pour jigéen yi gis naa ne côté boobu noonu euh, da nga ciy yëngu torop and then the other thing mooy côté daara yi yaa ngi def surtout jamono corona bi yaa ngi demoon si daara yi def social and everything lu tax yooyu sax je vais revenir si sa début wu question en fait du transition bi sax moo moo waral ma nekk euh, nit ku social vraiment wala kuy partager parce que loolu je pense que loo gis ci àdduna xol la rek te am na loo xam ne man. voilà su ma la doon wax tey j'allais te dire que dama ko judduwaale en fait par rapport ak man li nga may nettali ci sama enfance ak li nga xam ne sama yaay man moo koy témoigner si man donc su ma la doon wax dama lay wax ni lu ma judduwaale la parce que xaw ma fu mu jugee donc j'ai toujours même euh, may may après euh, ce le travail qu'on fait à la prison c'est parce mooy li ma la wax damay promouvoir entrepreneuriat féminin c'est-à-dire beaucoup de jeunes se forment ont des métiers et après n'ont pas où exercer mënuñu liggéey euh, soo xoolee c'est ce qui arrive même à la prison c'est-à-dire dans la prison il y a beaucoup d'activités il y a beaucoup de formations qui se font ñi ngi njëngu ñoom ci transformation de céréales ñi ngi def peinture ñi ngi def coiffure ñi ngi def lépp mais après bu ñu génnee y a deux problèmes qui se posent déjà le problème de manque d'emploi qui est qui est unanime ensuite ñoom seen réinsertion parce que dañoo jóge ci milieu carcéral donc c'est une réinsertion ci biir société bi tamit yombul su amul ñu nekk ci ginnaaw di leen jàppale ak ñu leen di pousse day metti te liggéey boobu je pense que du liggéey boo xam ne da ngay xaar ba ñu génn nga bëgg ko def c'est-à-dire tu le commences en prison tu leur fais comprendre que ces formations qu'ils sont en train de faire ñu ngi formé wu pour ëllëg bés bu ñu jëlaat jotaatee li nga xam ni ne seen liberté la mër nañu mën a entreprendre comme toute autre femme true dëgg la d'où le fait que moi je fais un événement annuel boo xam ni chaque mois de décembre te yaa koy présenter chaque année <laughs> donc euh, c'est pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin ci biir thème boobu bëgg naa ñoom tamit ñu gis ci seen bopp vu que ñi ngi yëngu ci dara c'est-à-dire li bon rek mooy toog soo xoolee boo yënguwul ci dara seytaane da lay mën. dëgg la bëri na ñu fa nekk du seen coobare. waaw bëri na ñu fa nekk li leen fa dugal. tey je dirais pas ñëpp. Mhm. mais am jot bi mën na ci jouer parce que ci jot la la seytaane di mënee. ba dugal la ci loo war ko euh, loolu moo tax ñuy def liggéey boobu ci prison bi ak administration pénitentiaire. ak daara bi ak yooyu noonu of everything right. daara yi tamit loolu suñu gis-gis la rek parce que déjà ñun li ñu war a def euh, lépp lu ñu xalaat ni war nañ ko mën a def. pour dimbali suñu réew pour dimbali ñi nga xamante ne néew nañ doole ak lu mën a xew dañ koy def ala kulli yàlla dañ koy def euh, yàlla mu ngi ciy dimbali ñi ngi ci saay bu ñu xëyee ñi ngi ci mais lu waraloon euh, période Covid bi ñu gën a concentré wu si daara yi bi Covid di doog a ñëw tout le monde était affolé mm-hmm. parce que on comprenait pas au début lan lañ doon wax rester chez d'ailleurs looloo taxoon man ma tëj samay entreprise parce que dafa amoon contact donc dama tëjoon dama tëjoon raffinerie après j'avais toujours peur pour ces enfants là parce que taalibe yi ñi ngi génn di yalwaani ñun ñi doon yor ay emplois yi tëj nañ suñu ay entreprise ñi am possibilité toog di def télétravail seen kër ñi ngi koy def ku nekk yaa ngi wut foo dugg mais xale yooyu nga xam ni saa yu ñu xëyee bu ñu yalwaaniwul du ñu am lu ñu lekk il fallait que ñu xalaat leen il fallait qu'on pense à eux man Covid bi ñu nee am na balaa ñu naan rester chez vous dama tàppet dama toog sama kër dama tëju woon <laughs> si biir tëju bi. <laughs> Uh-huh. Euh, jour bi may njëkk a génn. c'était mm-hmm. xale yi. dëgg loolu rek moo ma doon génnee. Mm-hmm. dama doon génn. Mm-hmm. def li ma war a def. ci daara après ma ñëwaat. dëgg la mais je daaw ma génn pour leneen. Euh, mi ngi noonu euh, loolu dañ la ci encourage rek ndaxte yàlla na Covid bi dem dem dem génn fii nii sax ba xam naa ne incha allah loolu bu def nekk na loo xamante ni da nga koy continuer di def. la tamxarit à part cere bi yow looy xalaat. waaw tamxarit nag buñ ko waxee à part cere bi. <laughs> suñu xel dafay dem aussi ci ci suñu diine. ñu xam ni euh, bis bu am solo la. te bis bu màgg la waaw bis bu màgg la ci ci diine lislaam donc képp ku jullit danañ ci profité di saafonte am na yenn yu ma ci yu ma si xaw a jàng ne baax na ñu koy def ci tamxarit muy euh, woor beek yenn ñaan yi nga xam ne dañ koy baaxoo di def ak euh, defe naa seeti seeti borom xam-xam. xam-xam waa teg sax loxo si bopp ak laal bopp jirim yaa donc euh, yooyu yëpp ñuy wax ni baax na ñu ko ciy def donc euh, sama xel day dem ci yooyu daal. waa léegi Clara taaju cereem. xam naa ne ñun bombal nañ la waaye xam naa bomb nga sa kër ba noppi ba tegal monsieur Gaye nga soog a waa loolu moom mënut a ñàkk aw Gaye nag. waaw Clara loolu boobu nooy nooy téye ah, yii da nga bëgg ma wax la. waaw. <laughs> non awa loolu loolu bàyyil ma garder ko. pour man ah, mais man xam naa yaa ngi dute yaa ngi naan kii est-ce que mën na togg. ah. yaa ngi dute mais. non duteewu ma. mën naa xam naa lu xam nga lu xam nga gayeen yi waxuma ko nag pour faalee ni ak jaañee ni ak jegeen ni mais gayeen yi dañu bëgg lu baax waaw loolu am na du ma yeggale foofu laay teg sama loxo euh, adatanda euh, ajaamu sëñ Fallou daal di la indil euh, cere royal bi nga xamante ni tey bërsu tam xarit bii nii tey yow lañ ko toggal as my special guest ndaxte nag wax dëgg neex yàlla jigéen jigéen bu bu bu formidable nga a very strong woman macha allah parce que yaa ngi wax fii nii léegi joxe si xol lay nekk du lay tricher du loo xamante ni nit daf koy def ci yow yàlla moo koy a def ci yow euh, en euh, kii bi di ñëw euh, cere di cere bi di ñëw pourquoi made in Sénégal non made in Sénégal bi dina xaar parce que cere bi made in Sénégal festival bi nga xamante ni dafa da nga doon da nga defoon series of something of movie boo xamante ni is when we say no is no conjugal and everything loo xamante ni if a woman say no is no lan nga feel bokk si that festival sol drapeau Sénégal <laughs> di garaaw garaaw loolu ñu nekk di awa ngay ñun dañoo garaaw. ah jeex na waaw loolu moom loolu moom am na ñun dañoo garaaw de. attention ok ok. <laughs> festival de Cannes en fait euh, loolu bokk na ci lu ma gën a neex ci sama carrière. Mhm. bien vrai que je suis à mes Euh, sant yàlla la aussi parce que être à ses débuts cinéphile en parlant et atterrir au festival de Cannes vraiment c'est pas c'est pas un petit c'est pas un petit truc. déedéet loolu ndaw. man la gis foofu noonu. ma ne ma xool photo bi ma ne moom kii kan la Nollywood ma ne la de ndaw la de. <laughs> pourtant moom la oui donc euh, mu nekk loo xam dañ koy sant yàlla bu baax a baax et c'est toujours un plaisir d'y aller et de représenter nag fièrement notre notre pays notre cher pays. c'est toujours un plaisir d'être présent au Festival de Cannes par rapport ak suñuy liggéey parce que quoi qu'on puisse dire aussi loolu moo ñu fa yóbbu ci suñuy liggéey lañ ñu xàmmee ci lañ ñu ràññee ba di ñu woo ci ndaje yu mel noonu loolu fierté la ak sant yàlla la aussi ak euh, encouragement la aussi pour ñu gën a góorlu donc euh, après bu loolu weesoo nag ba ñu yegg fa fierté la ñuy am pour représenter ñun fi nga xam ne foofu lañ jóge euh, as an actress nga gérer nekk at the same time an actrice gérer ay yeneen nit est-ce que lu facile la. non facilul comme je le dis facilul c'est pas facile mais comme on dit hein, euh, rien n'est facile dans la vie hein àdduna lu lu yomb amu fii. des fois da ngay bëgg bàyyi wala. waaw bëgg bàyyi. découragé maanaam mu metti ba nga bëgg dem. non découragement moom man bokkul ci sama vocabulaire. parce que bon on est on si on doit le faire il faut autant bien le faire. bu ñu ko waree def rek dañ koy def bu ñu warul def da après c'est un choix on a choisi de faire quelque chose dem ba si biir découragé loolu moom yàlla mi ngi ñuy dimbali loolu gaawuñu dal seulement quand on a des problèmes on a toujours des obstacles en face de nous tàggat nañ suñu bopp pour faire face on a appris à faire face aux obstacles te di ñaan yàlla di ñu gën a dooleel di ñu may kàttan boo xam ne euh, moo ñuy moo tax a continuer à faire face quoi te surtout kër gi ak yooyu awa Euh, dafay fekk euh, pour man sama cas nga dajee góor gu la yërëm ba pare bëgg la ba pare comprendre la ba pare bokk ci góor ñi nga xamante ne dañuy jàppale jigéen ñi nga xamante ne bëgg nañ propulsé wu ñu leen di tirer vers le haut man yàlla dafa def man ci borom kër bu mel noonu laa tombé <laughs> yow yow bi nga dalee si ko sant gay nga am chance wala. <laughs> waaw ah, la ñu ni tamit am na chance dal si eh, jabar bu mel ni yow ndaxte am nga jom eh, am nga fulla am nga fayda eh, ndaxte nag wax dëgg neex yàlla li la li la wër yëpp boo amulee fulla amuloo fayda amuloo benn dëggu ak benn réalistique bu nekk ci yow is very rare pour nga accomplish ko parce que liggéey ak ay nit dafa dafa metti so il faut nga dëggu mi ngi noonu Adja mu sëñ Fallou man daal boo ma doxantulee ndànka waa ñoom tamit seen cocktail bii moom bu si tam xarit ñi daal di ñu tegal cocktail bu spécial bii nii eh? macha allah waa Abis Garden eh, guys nee naa leen um, it's the best for all your cocktails eh, loo leen bëgg Abis Garden da ngeen di ñëw fii nii 24 hours 24 heures sur 24 loolu na mu ci lekk boo ñëwee fii nii di ko fii fekk xoolal exemple jigéen entreprendre xoolal entrepreneur comme Abi ubbi en place bu mel nii macha allah 24 hours muy dox. waaw loolu moom dañu si dañu si profiter si occasion bi pour encourager ko. déjà Abi ah, c'est notre c'est notre grande sœur c'est notre maman euh, bokk na si jigéen ñi nga xam ne aussi ay icônes lañ fi ci Sénégal après euh, mi ngi boole moom it ak euh, entrepreneuriat bi donc ça c'est des choses à à, à féliciter c'est des choses à saluer ñu ngi ciy profiter di ko di féliciter bu baax par rapport à Abis Garden. cere jàngoog cere royal yaa ko moom da déguster nga wax ma tamaate bi. kaddu bi lingeer tamaate lingeer kaddu bi ak euh, li nga xamante ni mooy ganaar bi mm. li mu togg nii lu mu sax mais ah, ok je vais déguster toute seule ah yaa kanaka bëgg a déguster ah, ma kanaka <laughs> toog man je n'ai de manger seul ah mais ah dinaa ñam rek ah yàlla baax na léegi wuyu ma dégg naa ko dégg ndigal nga te dang ñoo nopp lu ñu la digal da ngay def waaw si baatu Dora Gaye man Awa Gaye <laughs> jox naa la digal ay ca bokk <laughs> ngi noonu on va déguster <laughs> bon appétit na rees ak euh, jàmm euh, lii la ñu bëgg ndaxte lii yëpp euh, soo gisee lii yëpp happen mooy si jàmm la lépp xëj nga lekk si jàmm macha allah tell me lu mu goût bi lan la la lan la la jox. normal na de. Mm. Mhm. c'est très bon. jaar na yoon. kan moo togg cere bi. Abis Gadjen. ah Abis Gadjen macha allah. Adja Serville la. macha allah cere bi neex na. Uh-huh. Uh-huh. jaar na yoon. Uh-huh. te dara ëppul dara manqué wul. bi ak sa cere bi nga bomb sa kër nag balaa ngay ñëw. loolu amul. <laughs> of course. sax <laughs> euh, ngi noonu euh, meewu alib bi aussi euh, xam naa ne booy dem xam nga gaye ni dañuy bëgg lu oyof ay njar ay ay ay yëfu meew xam nga rek relax affaire yi deex booy dem da si yóbbaale sama càmmiñ bu baax a baax. merci beaucoup Clara Clara lan mooy. lan nga gis instant bi muy dox ci xale jigéen yi surtout ci côté fashion yow en tant que euh, beauty expert lan nga gis muy dox ci xale jigéen yi loo xamante ni xëj na euh, boo ci yokkee yow sa benn euh, sa benn advice dina leen gën a yokk ci côté beauté quoi. ñun jigéen ñi moom dañoo baaxoo yàq ñëpp ñu ko xamee c'est-à-dire que. euh, des fois, la majorité d'entre nous, on n'a pas vraiment le sens de la priorité. C'est pour ça qu'on a toujours du mal à gérer nos finances. On parle de l'entrepreneuriat féminin, ñu ngi koy yuuxu partout. Des fois, quand on nous laisse gérer, on gère mal nos finances. parce que ñoo ngi si xew yi ñoo ngi si futilité comme je dis on n'a pas le sens de la priorité wuñu li nga xam ne mënul ñàkk ak loo xam ne mën naa ñàkk donc les femmes on toujours ce problème là mais fi jamono toll je pense que ñu ngi gën a góorgóorlu ñu ngi ci gën a bàyyi xel et loo xam ne nag wax dëgg yàlla soo ko defee dana la gaañ. Mm-hmm. ah nga éviter ko. ah pense. oui parce ku nekk moo xam la mu denc aussi. Euh, Bercy bi gis nañ sa taxawaay foofu made in Sénégal euh, ñëw ngeen def benn entourage benn benn entrance bu bu extraordinary euh, ma gis boo xoolee Youssou Ndour di nga gis excitement bi nekk ci kanamam how do you feel gérer yi loolu noonu everything bare. <laughs> waaw loolu moom c'est un grand plaisir dañuy kontaan sax di ci wax parce que. Youssou Ndour euh, c'est notre papa c'est c'est c'est l'idole c'est la référence c'est c'est Youssou quoi comme j'ai l'habitude de dire donc c'était un réel réel réel plaisir de travailler avec lui bu ñu demee ba ñuy liggéey comme li ma la wax ci festival de Cannes rek kilifa bu mel ne Youssou nga xam ne suñu papa la suñu lépp la xool ñu ci biir ndaw yu bari ne yéen laa bëgg ngeen defal ma lii ak lii defe naa loolu ku mu doyul dara dootu la doy donc euh, c'était c'est avec un réel plaisir qu'on a qu'on qu'on a qu'on a tout ce qu'on def ci tamit suñu fulla ak suñu fayda ba résultat bi nga xam ne moom mi ñu wóolu woon suwetee na ko ci yaakaar naa ne am na ko ci te te te yegge nañu ko kon loolu rek doy na satisfaction vraiment. Euh, lan ngay euh, tàggatoo ban message ngay lancé euh, si jouru tamxarit bi si suñu ay téléspectateurs. waaw message bi ma leen di lancé rek mooy maa ngi ziar ñëpp. di euh, di déwénati ñëpp di baal ñëpp àq di baalu ñëpp àq di ñaan yàlla ñu ñu fekki ko ay at yu bare bari bari ñëpp am jàmm Sénégal am jàmm àddina am jàmm kenn ku ne fi nga nekk yàlla dooli la jàmm voilà loolu daal lay lay lay wax comme message. merci beaucoup Clara. it was a pleasure having you here. same to me. <laughs> thank you uh, so much uh, di la wax uh, déwénati uh, di wax képp koo xamante ne yaa ngi seetaan déwénati may wax déwénati sama ay sponsor wax dëgg neex yàlla this is a special special special special uh, thank you uh, to sama ay sponsors Sinico merci beaucoup ci Kadi merci beaucoup si li nga xamante ni mooy meewu al. meewu Alib waaye ñi nga xamante ni tamit ñooy Agroline Agroline merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup 17 years of existence boobu ba tey euh, yéen a ngi jox priorité euh, fa li nga xamante ni mooy alimentation fii di ci Sénégal ngeen indil ñu euh, tomate linguère bi nga xamante ni képp koo xamante ni jigéen nga ngay dugg waañ linguère nga ñu indil ñu pot boo xamante ni 700 grammes la 1300 lay jar am na 2 kilos am na li nga xam ne tamit mooy 350 grammes foo dem rek li nga am li nga xamante ni mooy euh, tamaate linguère te am nañ yeneen macha allah waaye waa euh, poulet euh, trésor thank you so much merci beaucoup it was really a pleasure working with you guys si ceycaare a 20 a 22 bii nii eh, ndaxte eh, ñoom nee nañ eh, bépp jigéen trésor la moo tax ñu daal di jël ganaar bi tuddee ko duppee li nga xamante ni mooy trésor thank you so much and a very big merci to the entire production team Mbisaan merci beaucoup Amza Diallo merci beaucoup merci beaucoup to Aïssata Sy merci beaucoup ci ki nga xamante ni tamit mooy ki yore lumière bi ja ja thank you so much beaucoup euh, to euh, Babacar waaye thank you so much to ñëpp ñoo xamante ni euh, damay bañ a juum waaye di remercier ñëpp di remercier bu baax a baax a baax ki nga xamante ni mooy waa Abis Garden merci waa Abi euh, for the disponibility euh, plateau euh, plateau bi ngeen ñu tegal lumière bi everything loo xamante ni ñun soxla nañ ko da ngeen di nekk ci suñu ay service ba mu jeex tàkk waaye thank you kër Adjaamu Serigne Fallou merci ci vaisselle yi merci ci li nga xamante ni mooy yekk bi ñu yekkal di ñu ko présenteel and ak man ci li nga xamante ni mooy cey cere 2022 ndaxte nag bii mooy ñetti at ñu ngi koy def te boobu tey macha chaque jour yàlla daf ñuy gën boole du ñu gën a jege euh, ndaxte yow nee naa la euh, groupe Futur Média euh, fi nga bokk merci beaucoup vaisselle yu rafet yi nii nag dama leen di jox numéro bi tey ngeen woo Adja si. 77 723 32 32 merci beaucoup Adja waaye rek euh, damay daal di euh, woo wax euh, numéro bi nga xamante ni tamit su fekkee ne danga soxla dara Abis Garden da ngay daal di toog sa kër nga woote commandé si numéro bii nii 77 814 29 29 waaye su fekkee ne tamit da ngeen bëgg poulet trésor bi tamit mun ngeen a toog foo leen munti nekk rek dinañ leen ko livrer ngeen woo leen si 77 533 44. 44 44 wala 77 568 11 11 thank you guys so much merci beaucoup di remercier bu baax a baax man ñi nga xamante ni ñoo ma seq waaye balaa may dem foofu ndaxte nag wax dëgg neex yàlla boo demee ba groupe Futur média man mi fiy mujjee ñëw ñu wóolu ma dénk ma émission bu toll ni du si mbaaxu kenn ku dul ki nga xamante ni moo sanc kër gi di Youssou Ndour di la ñaanal rek Ndour yàgg fi lool te wér noonu rek may remercier ki nga xamante ni tamit euh, mooy euh, euh, Birane Ndour Birane macha allah merci beaucoup merci beaucoup Ndiaga Ndour thank you so much waaye ki nga xamante ni tamit moo nekk the executive producer of Cey Cere all the time Boubacar Ndour nee naa Bouba macha allah li nekk si bopp bi xam naa boo ko sottee lépp Sénégal ku nekk dina am fi nga li nga xamante ni moom ngay def thank you so much waaye thank you si ki nga xamante ni moo nekk suñu diggante ñun ak suñu ay partenaires ndaxte benn yoon dara métti suñu ay partenaire dafa bëgg all the time lépp loo xamante ne suñu partenaire dañ koo bëgg euh, def ci dem ba jeex mooy Ibrahima Dieng bi nga xamante ni mooy the responsible the responsible of euh, li nga xamante ni euh, mooy suñu marketing and commercial uh, service uh, thank you so much uh, Dieng and thank you everybody man nag damay remercier bu baax a baax booba ba tey ñi ma topp ñi ma jàppale Darma si cey cere te bii nekkul first time Khalifa Mbergane borom luy fa la culture man ak yow dafa yàgg ma ne cëpp Sénégal yaa ma njëkk a solal merci beaucoup boo ba tey maak yow thank you Leila Couture ñëpp xam nañ sama digganteeg moom sama mag la sama xarit la thank you so much thank you waa Belle Dame Couture merci waaye merci beaucoup waa suñu taar thank you madame Diatta I love you so much uh, thank you Mamita Glam uh, Mamita Mita Glam uh, mami sama rak fere na la sa groupe Futur Media waaye waa Malado Malado merci beaucoup Khady thank you Montori yi may takk yëpp boo ba tey ñaata at dangeen may jox collection bu génn man ngeen koy jox thank you so much waaye di remercier bu baax a baax euh, sama papa samay waa kër euh, ñëpp ñoo xamante ni euh, dañoo bokk si man sant gay maa ngi leen di remercier bu baax a baax a baax waa Gambia thank you I love you guys déwénati leen ngeen baal ma àq bu baax a baax a baax baal naa leen yéen ñëpp I love you